الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo koo xam ci daaray Koki ñu ngi ko taxawal ci atum 1939 Serigne Ahmed Sakhir Lo moom moo ko sanc ci ndigalul turandoom di sëriñam di maam Cheikh mbay bu Louga. mel na moom moo fi ñëw mu ne ko yow tey la gàmm waaye may naa lu nekk ba nga des fekk gàmmu gi yow. ñoo dem ci sa demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla looloo tax kokki duñ fayoo ko mu daal di ñëw laxas waaye nag boobu ba mu ñëw nag ba mu ñëwee da ko booleeg bàyyi ma debba joob sëñ ma debba booba du sëñ kokki sax bàyyi mooy sëñ kokki mm-hmm. waaye yàlla moom la muy xam bàyyi ma debba moom fii daara ji nekk tey moo ko jox mooy moom mu ngi bokk ci njabootu Maam Maxtaar Numbe moo tax ñun waa Ndiobène mënuñ leen a fay. ñoo nu dalal dalal na ko jox ko ab tool gu naan rand ga ba léegi ñu koy bay béy 39 ba léegi tool baa ngi fii ñu ngi koy béy waaw. mu mu mu ñëw nag ànd benn jarbaatam kuñ naan baraama géy képp la àndal waaye yàlla mi dara tëwul baraama moomu nag yàlla da koo teel moom mu daa dawlu mu des fi moom de mu tumuranke lool waaye nag maam Cheikh Baye yëbalu ko bàyyi ko fi waaye dafa yebal ak njabootam tamit muy Baye Sam sëñ Sam Baye waaw Baye Abdou Salaam dégg nga ñooñu yëpp da ko yebal bàyyi boole ko yebal leen ne leen dem leen kokki ci moom yebal ko moom moo leen jàngal waaw moo maanaam sëñ Sam ba fi ñëw wàcc na waaye wàcc rek la ndax sëñ ma sax neen ba mu ñëwee damaa tàmbalee teg maam Bàqara muy def sumun te xam nga sumun léeg-léeg sax nit dana ko fi bind fii ak roba waaw waaye mu metti ci moom la mu ne ko sëñ lii daa metti mu ne ko nag ngir nga mokkal lii rek ngay maa def ànd ak moom ànd ak moom nag ba mokkal ba mokkalee mu dalal ko laxtar yi ba mu jeexalee mu dalal ko asmaa yi ba mu jeexalee mu dalal ko ibnu asir ba mu jeexalee mu dalal ko muqaddimatul isiya ba mu mu dalal ko risala ak téere yi yeneen téere yi xam-xam yi eh, loxo yeeg eh, naxu aju fiq aju eh, aju yi mu jàngal ko ko ba jàngal ko Ibnu Malik xam na Ibnu Malik moom mooy téere bi gën a mag jamono jooja ci wàllu naxu ba ca baabul xaal. baabul xaal la ko bàyyi na ko nag ma yebal ko nag ne ko mën ngaa dem ci yeneen daara foo demati day doo fa yàgg ndax yee nañ la ba noppi. waaw ci loolu nag loolu nekk ci liggéey bi nag nekk ci nag ànd nangoo ko lu ci lu liggéey bi àndal. njëlbeenu sancug daara ji métti na lool ci sëriñ Ahmadou Sakhir Lo bari woon ay natt yu bari bari yoo xam ni daan na tegu ci kawam waaye wàññiwul lenn ci pas bi nga xam ni amoon na ko. njaboot maanaa dong yi génnoon dem ci xam nga wax naa la baraam moom sa jarbaatam boobu fàtt na mhm. waaye bi dong yi tàmbali di ñëw ñu génn dem ci benn déeg foo xam ne fii xam nga am na tëli lu ñu naan tëli lañ ko daan wax du tëli boobu tëlib suuf la. Mhm. boobu oto yi 46 yi roñ gerte ñoo ciy jaar. Mhm. boobu ci jamonoy colonialiste yi la booba dañ ko daan fàkk ak di ca wut ay ban yooyu di cee def ngir oto yi di ci man dem oto yi daan jëf gerte yeeg. Mhm. Eh, bagage yeeg yooyu. loolu lañ daan wax tëli ba man mi fekk naa fa fekk naa ko fi lu yàgg. waaw léegi eh, fa ñu doon gase kàmb yéen doon gase nag. bi ak kam euh, yéen doon gase nag nekk am pax ndox taa ci xale yi ñoom di sëmb far ab lim faatu ci. lim ab lim kay waaw mu doy waar lool waaye teewul loola nag dool wàññiwul ci sëñ ma saxir dogoom ak pas-pasam dara da ko gën a dolli yemuñ ca loola tamit kër gi tamit nag di lakkaka lakkaat rek nag hmm? waaw doy na waar lool ndax ñax kese la waaye loola yëpp wala lenn am wala ay nattoo ki ay musta tax sëñ ma saxeen wàññi pas-pasam dara loolu da ko gën a dolli gën koo dëgëral mu continuer ci la def am na benn bi soo boo xam ne ñu ngi nettali na kër gi day lakk fekkoon ko mu demoon ci dëkk ba ñu ne ko yow da daara jàngay lakk ba mu ñëwee fekk kër gi lakk waaye taxanteeg timis di jot timis di jot ba tey ci kër gi dana nodd leen xam loolu tamit seytaane day nattu nit foofu ba xam waaye yàlla bi dara sutur bi ñu neen nodd bi ñu daataa àggal nodd gi ci la sawar loolu nag ci la nekk nekk ci liggéey bi def ko yitteem guddi ak bëccëg nekk ci loolu nekk ci loolu bañ dem ci mille neuf cent soixante dix soixante dix soixante onze soixante douze Alaaji Maxari Géey mu ñëw fi nag tabax daara ji def ko ni mu ko def xam loolu tey day histoire bu mu dugg moo ko jëkk a tabax def ci gone yi alxuraanul karim jaraloon na ko lu ne daan wax tamit su ma amoon alal ju ko mate soo indee sa doom yow dama lay fay baay bi fay yaay ji fay xale bi jàngal boo xam-xam mu dem ma dem yàlla bu ngi seen teet ba kër yomal xiyaam dundam gépp nag noonu la ko def ci la ko jeexal ba bi muy génn àddina kere bi mu génnee àddina waa kër mi soxnaam yi nga xam ne ni ñu ko war a doon amuñu luñ na ci moom ndax weccet lañ fekk ci poosam ndax yurul dara booba sëriñ Amadou Sakhir Lo mi ngi fi bàyyeekoo ci le 30 mars 1988 wuy ji suñu borom ñu denc ko fii ci daara ji di ndigalu sëriñ Sambay mi nga xam ni moom moo ko taxawu ginnaawam nag waajaloon na ñoo xam ni ñooy taawul liggéey bi nga xam ni moom la tàmbali woon wéyale ko. sëñ ma sëñ ma Sakhir ca bu yàgg boo man judduuma euh, euh, euh, magam Baye Modou Matar da koo joxoon ak njabootam gépp waaye am ci kum gënoon a yaakaar ku ñuy wax Mor Gueye Mor Gueye moom moog sëñ Maxtaar mi ñoo bokk ndey ak baay kooku tolloon na ci neex xel ak kii tariw rafet sëñ ma saxi daa sonnoon ci moom mel ci melokaan boo xam ne nii ci njàng mi ni mu ci meloon ak yar beeg lépp sëñ ma saxir kooku la moom la wiisi woon moom la bàyyi woon xel ne kii daal moom dana mën a taxaw dana mën a dana mën a nekk loxo lay jooram boo xam dana ko jàppale. far yàlla def ci la soob mu faatu. waaw nee na kelaan noppee am yaakaar ci kenn man kay léegi damay def rek lu yàlla def rek baax na waaye nag euh, loola ba amee tamit euh, dong yi di jàng di ñibbi waaye nag am sëñ Maxtaar mi fi nekk tey moom nangoo toog am na suñ jeneen doomi baay sax koo xam ne kii toogoon na ñu ko. Oustaz Ahmed Lo Ndiémé moom lañ tuddee Madoumi waaye baayam nag day doomi sëñ ma saxir ay doomi baay lañ waaye day doomi euh, day doomi day doomi euh, bàjjenam day doomi nijaayam tamit waaw maanaam maam Ndiaye jaay la ci euh, Mbaarik Anta Bàcc mi jur Oustaz moom mooy maam Mbaarik mooy jarwaatam nekk moom it da ko joxoon ak njabootam moom it nag Oustaz moom moo toogoon taxawoon liggéey bi comme ni sëñ Maxtaar taxawee tey taxawaay bu rafet ci njàngale mi ci liggéey bi ci lépp waaye nag dafa amoon feebar. feebaru napp sëñ ma saxit ne ko te sëñ ma saxit dàcc lu nekk yàlla defal na ko sutura defal ko barke boo xam ne bii ba léegi école arabe bi gën a mag ci Louga moom moom école am la. macha na yàlla yërëm ko. kooku sax moo jàngal sëñ Maxtaar mi léegi nag sëñ Maxtaar. toog ñi fi ñi fi nekkoon tañ bokk moom nekkoon tamit ñu bokk bàyyi ñu ñibbi ñeneen ci des tamit ay jabaat sëñ ma saxee tamit di ñibbi. sëñ Maxtaar daa dund ak moom. lu ëpp. ñeent fukki at xanaa juróom fukki at sax. dund ko ak moom nekk ak moom. nekk fi nekk fi léppam amul amul amul amul dëkkul fenn wutul fenn lépp nekk nekk kooke. maanaam nangul ko nangu goo xam ne moom moo ko nanguloon nangu xam ne gi gisuma ko ko commencé nangul. waaw waaye nag it amee na ci loo xam te yaakaar naa kenn amu ko ci nag ndax aggoon na ci mm-hmm. yaakaar man booba man gëneeguma àddina ndax cinquante sept la yaakaar naa ne su ma mm-hmm. amoon na bourse boo xam ne bii daa waroon a jàngi Maroc fas Maxtaar Sànq ci la bokkoon sëñ Maodo si moom sëñ Abdou Aziz mi ci la bokkoon booba yaakaar naa suñu booba sax duñ dugg euh, avion booba bateau la ñuy dugg mm-hmm. mu ngi toog ba guddi bi mu xëy su war a dem xam day dugg saxaar dem lu ko dugg saxaar doog a dem Dakar pour tàggutoo war a dem nag. bañ toogee ba guddi bañ ne suba lay dem ne ko sëñ ma saxit fekk ko fa mu tëdd mu ne ko pëk pëk mu woo ko mu ñëw mu yëkkati mu mu jóg mu ne ko toogal. Hmm? ñii dem duñ la tane de toogal. Oh. waaw. di daara joo xam ne dañ fiy jàngale alxuraanul karim ba ñu mokkal ko di yar ci yarub lislaam ci xayma bi nga xam ne moom lañ mujjee def ci atum 2022 bi lu toll ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukki ndonge daara ñoo fiy jàngee. daara ji mu ngi ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk fi mu nekk nii sax dañoo nekk ci ay recensement yu bees mën naa am chiffres yi changé balaa fin année fin d'année bi. daaray Koki ay nationalité yu bëree bëri ñoom ñoo fiy jàngee am nay sénégalais ay maliens mauritaniens gambiens ay guinéens ay français ba ci ay américains njàng mi ñu tënkee ko noo xam ni daanaka ci ñeenti at rek da nga mokkal alxuraanul karim. dañ leen a séddale ci ay groupe pédagogique groupe pédagogique yoo xamante ni toll na ci 62 groupes groupe bu ci nekk du weesu téeméer. groupe bu nekk nag day am ku ko jiite am ñu nekk ci suufam di ko jàppale. daara gi njàng mi doo fay dara waaye am na ay charte yoo xam ne moom lañ teg képp koo xam ni bëgg na ci état bi faaw nga sàmmoonte ak moom. bi ci njëkk mooy da ngay matal charte yi ba noppi charte yi bi ci jiitu mooy xale bi lum néew néew na am juróom-ñaari at ndax fii mbooloo fi nekk te daanaka quartier la comme ni ko Cheikh Ahmed Sakhi daan waxe nga xamante ni xale bi. Euh, lu mu néew néew daal na mën a defal bopp bu demee ci wanag mën a defar boppam moo tax ñu ciy charte juróom-ñaareelu at charte ñaareel bi mooy woy jur yi il faut mu am accordu kilifa yi fi nekk accord boobu nag mu ngi koy amee par téléphone jokkoo kilifa yi walla bind wala mu ñëw ba agsi ñetteel bi mooy na nekk ku wér na wér physiquement mentalement aussi tamit na ñeenteel bi na pare pour règlement intérieur bi nga xam moo nekk ci daara ji mu pare respecté ko loolu mooy charte yi nga xamante ni ku fi bëgg a indi sa doom moom ngay matal juróomeel bi mooy xale bi buy ñëw am na ay jumtuwaay yoo xamante ni moom la war a ëndaale jumtuwaay yooyu bokk na ci waxande weñ mat la téere bu muy jànge bagage yu sew sewaanam waaye nag danañ danañ di sàkku ci way jur yi xale yi ñuy am luñ leen di dimbalee ndax comme dañ fee nekk ak seeni nawle waxtu yi nga xamante ni daara ji moom euh, du du waxtu añ du waxtu ndékki du waxtu reer bu fekkee bëgg naa jënd dara mu am loo xam bu demee ci bitig bi jënd comme dafay nekk ak ay nawleem te ay nawleem Euh, seeni wayjur dañ leen di taxawu ci côté boobu. njàng mi ñu tënkee ko noo xam ni daanaka ci ñeenti at rek da nga mokkal alxuraanul karim. bu ñu xëyee lii seen programme mooy huit heures la ñuy commencé jàng jàng ba midi ñu noppalu ba trois heures ci bëccëg ñu commencé waat jàng demaat ba dix huit heures ñu arrêté. julli timis buñ demee ba julli timis ba noppi julli gee noppalu buñ jullee gee ba noppi ñi xaw a sori jàng waxtu gannaaw julli gee buñ demee ba njël tamit ñu jug jàng fajar euh, waxtu ak genn wàll avant ñuy julli fajar daaray Koki njàng mi amul fay lépp kilifa gi nga xam ne moo yor daara ji moom moo ko gàddu di sëriñ maxtar Naarloo mi nga xam ni jamono bii daara ji ci loxoom la nekk yor dunduk ndongo yi seenug faju ak lépp lu ci aajow daara ji da leen jël en charge gratuitement daara ji moo yor seen dund moo yor seen faju moo yor seen lekk moo yor seenu njàng moo yor seenu nekkin loolu nag ku ko dégg ni ñeenti junni yoo xamante ni dañ leen a yor gratuitement maanaam sa li ngay njëkk a laaj mooy ñi li leen yor fu muy jóge daaray Koki charge yi diis na lool waaye ñi nga xam ne ñoo jotoon a jaar ci daara ji ak yeneen i waaye defal yàlla ñoo ciy jàppale sëriñ bi bu baax a baax li ñu sóor ci ceeb ëpp na une par jour li ñu sóor ci ceeb añ rek ëpp na une tonne reer bokkagul ndekki bokkagul tey loolu lépp ci poos sëñ bi lay jóge ak ñi ko ciy jàppale mooy daara joo xam ni la cay nekk cay taalibe jege na 4700 ku leen di toggal war nañoo seet loo xam ne dafa méngoog jamono lii nag lañ bëgg a fii yóbbu ko ca waañu bees wee Cheikh Diop doon wax a Galas Lo ndax waañ woo xam ne lu gàtt gàtt gàtt gàtt jamono ju ne ci daara jii ñu taxaw daara ju mag ji danga taal 30 mbana wala 40 mbana yoo xam ne yàpp lay ànd ak macaroni loolu kenn mënut si koo defi ndax jamono dafa dafa dox moo tax ñu bëgg ko dugal ñu jóg ko jële fii yóbbu ko fële fii la ñu togg la xale yi tey jii li ñuy togg mooy yàpp ak macaroni lañ fa seen a añee nga xam ne rey na ñetti nag yu mag nag yoo xam ne benn bu ne jar na un million deux cent nga xam ne nag bu ne ëpp na une lenn ci daara ji ndax daara ji dafa dafa dafa séddikoo ci ay pàcc yu bari ndax am nañu taal kër jigéen ña taal nañ Medina taal nañ Arafa taal nañ naa taal na kon li fii liñ fi taal moom tey ji mën na 30 ndax mbana yoo xam ne dañoo fas yéene añee macaroni ak yàpp ca dara warulu ko lu dul bëgg xale yi jàng ñu di lekk ba suur di naan ba màndi li leen liñ leen fi indee ñu man di ko def ndax nag lu coow li bari bari bari nit bu xiifee dana tal leneen lu dul jàng kon nag lii ku ko ki ko sumb muy julliti muy lislaam muy bokk yi nga xam ne lii ki ko def sunu menn mbokk la sunu menn mbokku taaliba moo xëy ni daara ji da leen di toggal soppil leen cin nga xam ne tey ji rey nañ ñetti nag limub ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji séddale añ mi day métti lool moo tax ñu naal fi projet bu mag boo xam ni moo jëm ci restaurant bii nga xam ni dana mën a accueillir lu toll ci ñeenti junni ndongo yoo xam ni daañu fi mën a xewlandoo ñenn ñi dañ daan lekk ci daara ji ñenn ñi doon génn dem ci dëkk bi ñu leen di cibbal ñu fay añee ndax dëkk bi kër goo dem am na donga daara yu mu cibbal mais confinement bi mu ñëwee ci Covid bi ñu confiné na bu kenn génn kenn du génn sa nag ci biir loolu sëñ bi moom mu yoroon cinq mille quatre mille sept cent étudiants ñu confiné ko moom ak i dongaam ñu toog sëñ Fall déglul baax li ma la wax. Mhm. quatre mille sept cent étudiants lañ ko confiné moom ne ko kenn du génn sëriñ bi. sëñ bi di di di joxe añ di joxe reer noonu la ko doon defee naka jekk mais terewul am na ñu ko ci doon jàppale waa dëkk bi ndax kër goo dugg ci dëkk bi am na donga daara mu ci bal mais jamono Covid bi loolu amatul sëriñ bi nag ci mu rafet mu xalaat ne kon jot na ñu fexe ba daara am autonomi boppam ba nga xam ne tey lu mel ni bu amatee ëllëg du du ñu bett ci la xalaat jël cinq hectares yii dama koy def benn restaurant bu moderne. restaurant bi ñu ngi ko xamoon ci mag lañ ko xamee. chantier bi bi ñu ko sancee ak léegi dix huit mois la sëriñ bi nag idée bi comme li Cheikh Diop waxoon mi ngi ko jëlee ci Covid bi ko jëlee woon ko jëlee ci Covid bi ci la am idée bi bis bi muy teg xeer bi fii sëriñ bi juróom-ñaari junni képp la yoroon ci poosam daan ni ku gaaw def ci sa alal da nga ko rëccu boobaag léegi nag sëñ bi yëglewu ko tudd ko ci ay tele tudd ko ci ay rajo nit moo fi ñëw rek jaar fi gis chantier bi ku am ciment indi ku am fer indi ku am bouton indi ko am leneen indi. yàlla def na ñu dénk ko ku ñuy wax alaaj daam loo mu nekk mag ci man ñu bokk ndey ak mu yor chantier bi chaque samedi mu jugee ndakaaru ñëw fii di ko toppatoo di xool àdduna fan la toll ci mbirum tabax li gën a mucc ayib loolu la fi indi te ñu xam matériel di tabax ku gis ku gis matériel bi da xam ne lii ndakaaru sax amu fa kon na nga xam ne yàlla képp moo jar a yàlla suñ borom nag képp ku liggéeyal danga la fay beneen bi des ñuy woo mboolu jullit yi di woo waa Sénégal di wax daaray kokki yii daaray Sénégal la di wax jullit Sénégal yi ay jàmbaar lañ kokki bu agsee fii waa Sénégal la li tax sanq see jóg di tudd ay nit sax ñooñu muy tudd jaaruñu fi ay nit la ñoo xam ne dañu fay dox ba visite ba egsi fii rek jël somme ci xaalis bi toll noonu def ko ci soo gisee ñu tudd seen tur dañoo bëgg a lii damay dégg benn mag mu baax muy wax wax ju am solo muy dañoo di kañ jàmbaar ngir yàmbar yi mm-hmm. te lu baax ko gis ku nekk war nga ko yéene say mbokk war nga ko yéene say xarit ñuy wax chantier bii koo tabax ba egsi fii budget bi nekk deux milliards yu manqué tuuti wala mu mat ko ñu tabax ko ba egsi boo xoolee def nañ ci lu ëpp un milliard cent millions kon liñ dese ay finition moon dese bu bu dee ay karo dem nañ Espagne jënd lépp ba mu mat gis nga aali kaboon bii ñu def boo xoolee Dakar ay kër yu néew nga ko fee gis liggéey bu dee ba tollu fii kon ñi ngi wax gars yi ku gaawut sa dërëm du ci dem ay cin lañ manqué cin yi manqué rek benn 15 millions 16 millions lay jar cin yooyu day sóor 400 kilos wala muy sóor 500 kilos ak gaz boo xamante ni si moom lay defaree fi fii am na fu ñuy fu ñuy fu ñuy lawatee ay jur fii am na fu ñuy toggee fii restaurant bi bu paree par 4000 personnes mën nañ duggandoo añanoo dañoo bëgg bu mu di jotee ba xale yi wàccee rek ku bëgg añ ba 2 heures ñu tëj. suñ julee timis ubbi di reer ba 22h ñu tëj bu ñu xëyee 6h30 ñu ubbi di ndekki ba 8h ñu tëj kon ku gis liggéey bii war ngaa daw ñoo def sa ñaq summa jtabeehu rabbuhu fataaba alayhi wa hada qaala hbitaa minha jamiica bacdukum li bacdin caduw فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى daare Koki am na lycée boo xam ne enseignement général la ñuy def maanaam programme bu éducation nationale bu Sénégal moom lañ fiy jàngale lycée bi nag ñi nga xam ne ñoo jot a mokkal alxuraanul karim ci daara ji ñoo fiy jàngee moo xam primaire la moyen ba ci secondaire at mu jot nag bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën la ay résultat ci réew mi moo xam série L la wala série S. Alxaaji Adama Diouf saakin fi Tambacounda taalibam fi Ahmad sax ama saxirloo على مستوى الفصل السالي الثالث الثانوي واعتمادا على ما سمعنا من هذا الطالب أخينا محمد ماهلو من الآيات الكريمة يمكننا القول أن القرآن الكريم جاء فقط بشيرا ونظيرا بالتقييد و jaa yubashiru lilladina yattabi'una tariqa alxaq wa yundiru lilladina yadilluuna an dalika altariq Mon nom c'est Zeynabou Lo. J'habite à Touba. Euh, je suis venue ici euh, à Koki en 2010. J'ai mémorisé le Coran en 2014 et j'ai euh, j'ai entamé l'école En 2014-2015, j'ai obtenu mon certificat en 2018, 2018-2019 et mon brevet en 2000, euh, 2021. Je suis maintenant en classe de première S2A. Uh, my name is Tafsir Sissé. I'm from Dakar. I have been here since 2010 I have memorized the Holy Quran Uh, and I, am the student Islamic Institute of Koki. And I started the, the school at the year of 2014. Uh, and at this time, and the strain uh, L, uh, S, S the R. But we are so happy to see you here today. Helen uh, to Koreans, in the Quran Yahdi Akwam, in the Sumul said, you can say After we come in here in this dara, we were the ignorant boy at the right. We didn't know anything, but we come here and we learn the Quran. After we memorize this, we continue our study in this school. At this time, we study all the subject, English, French, and also Arabic. ginnaaw ba nga xamee nag ñëw leen fii jàng leen fi quraanul karim ba mokkal ko di ko jàngale dugg si école bi di jàng si année bii nag ñu ngi toll saalis saani bi war a def bac ren di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex defal ko képp koo xamee ne yaa ngi jublu lii di examen di bac ak lu dul moom lu mel ni certificat ak BFEM yàlla nañ si yàlla defal réussite totale mention yu kawe kawe dañuy jàppate kon Qur'an karim dafa ñëw pour sauver ni muy sauver nag mooy day ñëw képp koo xam ne yaa ngi woon si yoon bu baax bi mun la yaa ngi si yoon bu baax bi wax la li nga xam ne moom nga si mën a jëlee ëllëg nga mën see sax képp koo xam ne yaa ngi si yoon bu nga xam ne muy toon yoon bu baax mu xupp la xam li nga xam ne moom la si xaar nga mën see jugee kon si loolu nag dañuy jël misaal rek si ñun ñi nga xam ne avant ñi fi ñëw xëy na mën nee na mën naa wax ne xamuñ dara xamuñ sax li nga xam ne moom moo ñuy jëriñ ba loolu dañ dañu daan dugal ci dugg dugg loo xamee ne si yoon nekkul ci te ay duma rek lañ ciy jëlee waaye nag bañ xam bañ ba xam ba jàng Qur'an xam li yàlla wax si Qur'an xam ay ngëneel lim si wax xam tamit ay duma yi nga xamee moom lay xaar ki nga xamee ne topp yoon bu jub bi ñu commencé neen di topp li nga xam ne moom mu ñuy jëriñ bàyyi lépp loo xam ni dañuy dañuy lor. école bi ay euh, ay mille ay 2011 2012 ci lañ tàmbali woon liggéey bi. waaye biñ koy sanc 2015 lañ ko sanc lañ fi ñëw fii école bi kenn ku fi jànge woon ba jóge fi euh, euh, suñ borom euh, baaxee ko mu yëngatu ci yaxamtu nekk ndakaaru moom moo ñëw joxe xalaatu ni daf fee bëgg a defar école boo xamante ni bu mucc ayib la bu méngoog jamono ñu koy wax alaaji Abdou Aziz Sylla yàlla na ko suñ borom fay moom moo ñëw joxe xalaat boobu xalaat boobu tamit méngoog bëgg-bëgg borom daara ji ak bëgg-bëgg ki sancoon daara ji ñu soobu ci liggéey bi moom lépp moo ko def moo ko def moo équipement bee lépp lu fi aju moom moo ko moo ko def li wajillaahi taala waaw fii ñiy jànge nii fi mu toll ñi fi jànge ñëpp dañoo mokkal alxuraan moo tax wala ñëpp ci ñoom dañoo mokkal alxuraan mokkale ci daara ji am ñenn ñoo xam dañoo mokkale ci yenn daara yi nekk fii ci dëkk bi comme di ak kër nguro ak yenn daara yi nga xamante ne ñoo fi nekk am ñeneen ñoo xam tamit dañoo mokkale ci yeneen daara ñoo fi nekk fi mu toll nii daal li fi nekk ci ñu fiy jàng moo xam ñi mokkal ak ñenn ñi néew ñoo xam ñenn lim bu tuuti boo xamante nii mokkaluñu waaye min nañ alquran jege nañ fi mu toll nii ndax dañuy dugg ci noppeeguñu waaye mën nañ huit cent daal moo tax la ñuy doxal ca daara ja daaray alxuraan ji moom la ñuy doxal ci daaray xam-xam waajur bi teguñu ko ab kaye teguñu ko dara dara dara dara maanaam inscription li ñuy tuddee inscription yoo xam ne sax dafa am ci école publique teguñu ko waajur kon lépp lu ñu fiy joxe ci xeetu xam-xam dañ koy joxe li wajhillah sëñ bi ci woppam maanaam xeetu xam-xam yi nga xamante ni dañ koy jéggaani faneen ci yeneen professeur yoo xam dañoo nekk Louga wala yeneen nekk faneen ñooñu sax sëñ bi mooy génnee ci poosam di leen fay ñuy ñëw fii di def ay ay cours di jàng xale yi waaw. association des anciens du daara de Koki mu ñi nga xam ne ñoo jotoon a jaar ci daara ji ñuy waajal bis bi nga xam ne at mu jot dañ koy amal di journée de solidarité di ci dajale ay koppar ak jumtukaay yoo xam ne dañ koy jàppale daara ji bis boobu nag ñu jàpp ko le 25 décembre 2022. képp koo xam ne ab jullit ngay bi wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah te alxuraan ñor la ñu ngi lay woo ci ndaje mi di ci laaj sa ndimbal. xaalis mat la xam-xam oto ciment fer lépp lu waaye am ca man ñu ko jox ñu ngi la koy ñaan ngir jëmm yàlla ndax lii fi nekk fii kat kenn muumu ko kenn ku mën a fëgg sa dënn néew ko moom ndax mboolem ñi fi nekk du ñu taalibi sëñ Matar mboolem ñi fi nekk taalibi sëriñ si ci réew mi la képp koo xam ne jàng fi ba noppi say bokk rek ngay dellu ah, amal sa bopp njariñ amal leen njariñ amal réew mi njariñ kon nag lu nekk lu mel nii bu ñu ko dee woote nañ ñëpp ñëw. soxla lañ ay yére soxla lañ ay garab yu ñuy fajoo soxla lañ dàll soxla nañ ceeb diwliñ lépp loo xam doomu aadama da koo soxla rek. ñun daare ko soxla parce que ay doomu ñoo fi nekk ay malaaka nekkuñu fi ay jinn nekkuñu fi. ay nit ñoo fi nekk. di war di lekk di war di lekk di war di naan di war def lépp te sëriñ bi amul kenn ku ko jox juróomi dërëm ku koy ku bàyyam di fay juróomi dërëm amul fii kon lépp lu nit di soxla soxla nañ ko. <laughs> ba pare di wax ni daara ji daara Sénégal la. 14 nations yëpp ngi fi 8 nationalités ñu ngi fi. daaray at mu jot lim bu takku dina fi mokkal alxuraanul karim boo jëlee atum 2021 bi rek lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki ndongo jot nañ fee mokkal téere bu sell bi. noone it la ñuy amee ay résultats yu baax lool ci mboolem examen yi nga xam ne ñu ngi koy def boo jëlee certificat de fin d' étude atum 2021 bi am nañ ci 91 virgule 18 pour cent BFM arabe ñu am ci 100 pour cent BFM français bi 100 pour cent lañ ci am. baccalauréat L arabe 96 pour cent baccalauréat série S2 100 pour cent baccalauréat L2 ñu am ci it cent daara jii di Koki nag mboolem ñi nga xam ni jot nañu fee jaar génn ay référence lañ di ay royuwaay yu mag ci réew mi lépp ci alxuraan ji nga xam ni moom lañ def ci ñoom boole kook yar bu mat sëkk boo xam ni kenn ku ne am na ci yow njeexintal waaye yee la bu baax a baax ci àddina ba foo dem fu ne mën a jëflante ak ña fa nekk قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم